bismillahi rahmaani rahim secret bi ñu leen di bëgg a jox képp koo xamante ne nii def na ko guddi bu xëyee dana am xaalis bu bare bare bare bare bare incha allah te jafewul te lépp alquranul karim la comme ni ñu leen waxee ne lépp loo xam ne ñu ngi koy ànd yéen day nekk lu ñuy sukkandikoo ci alquranul karim ak sunna si yonante bi alayhi salaatu wasalaam kon su ñu toppee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 sayyidina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi zawi ridwaani wal jaah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di fas yéene ñëw ci benn secret bu am solo bu bari ay ngëneel kom ni ñu leen ko waxee léegi ci njëlbeen gi euh, mbokk yi képp koo xamante ni def na ko bu xëyee def na ko guddi bu xëyee dana bari xaalis lool incha allahu taala lan ngay def dangay jàpp ba sell sollu lu laab toog jublu xibla mooy jublu penku jàng li ñuy bëgg a wax allahuma salli ala nabiyi rahma fukki yoon soo noppee nga teg ci suuratu quraysin li ilaafi quraysin suratu xuraysin ngir mbokk yi nga xam ne ñoo ko miinul bu baax mën nañu leen wax saar bi ban numéro la ban numéro la bu ko defee nga xam ne ñenn ci mbokk yi nga xam ne xëy na seen njàng dafa dese sori lool lool dañuy dugg ci Google rek daal di bind euh, numéro saar bi mooy lan ban numéro la cent sixième suura suuratu xureesin mooy cent sixième suura kon tey boo ko doon xool tey da ngay dugg google mën nga dugg google nga bind suura cent sixième suura mhm, suura numéro cent soixante six mu andi la ko ayatul quraan yi bëriwut ndax ñeenti aaya la kon men na ni loolu tegtal la boo xamante ne ni dañ leen koy baaxewaale rek euh, ngir mbokk yi nga xam ne ñoo ko bëgg di gëstu ak yi mel noonu su ko defee nga jàng allahuma salli ala nabiyi rahma mooy tàmbalima bi fukki yoon teg ci suuratu xuraysin fukki yoon soo noppee nga jàngaat allahuma salli ala nabiyi rahma téeméeri téeméeri yoon téeméeri yoon boo noppee nga tegaat ci suuratu yoon xam nga yoon bu njëkk ba fukk la woon yoonu ñaareel bi benn bu ci nekk nga ñëw def ko téeméer boo noppee nga jàngaat la nga jàngoon ci bu njëkk te mooy allahuma salli ala nabiyi rahma mille fois boo noppee nag nga jàng suuratu xureesin mille fois nga def ko guddi xëy jàmm incha allahu taala nga xool say xiiwal ni muy yokkoo ci kàttanu suñ borom tabaraka wa taala lii moo nekkoon secret bi ñu leen andi woon tey ñu ngi lay ñaan bu fekke alquran ji ñu leen di won lu leen neex la ci seeni xol nga bëss jëm te partager ko inshallah taala ku bëgg ñu defal la vidéo ci mbir dañ koy commentaire bu ko defé dinañ leen ci mëna defal vidéo ñu ngi leen di sant te di leen gërëm alaykum wa rahmatullah